suñu réew Sénégal nag moo jël ñaareelu place ci concours bi nga xam ne eh, concours tari alxuraan bi ñu doon amal fële ca Dubaï te nga xam ne sax dëkku àdduna yi ñoo fay teew ki nga xam ne nag moom mooy El Hadji Cheikh Dia toll ci fukki at ak juróom moo jël ñaareelu place eh, boobule gannaaw bi nga xamee ne sax kon résultat yi ñu ngi ko doon joxe eh, démb. moom El Hadji Cheikh Dia sax ci atum 2021 bi ñu génn moom moo jëloon itam deuxième ci grand prix eh, bu Sénégal bu récital di Coran moom nag mu ngi jàngee ci daara El Hadji Cheikh Dia bu Touba. njiitu réew mi Macky Sall nag bésub tey bi bind na ci compte Facebook am ngir jaajëfal gone gii di El Hadji Cheikh Dia wante itam rafetlu jéego yi nga xam ne njàngum diine mu ngi koy am fii ci Sénégal. syndicat yi yëngatu ci wàllu wér-gi-yaram fii ci Sénégal ñoom nag dañoo fas yéene dajaloo amal ay euh, waxtaan jëmale ko daal ci seen liggéey li ko sabab nag moom mooy mbir mi nga xam ne xewoon na fële ca hôpital bu Louga te nga xam ne kon as ndaw dafa ñàkk bakkanam gannaaw bi nga xamee ne sax moom dafa ëmboon loolu nag tax kon ba bëgg ñu dajaloo euh, waxtaan ñoom nag euh, nee nañ li nga xam ne daal daal yi daal yi nga xam ne teg nañ ko kon personnel santé ba fa nekkoon ñu ne ñooñu daal la ñuy daal indil seen soutien ñoom nag gannaaw ginnaaw bi ñu masawoo seen i naataangoo ya nekk ca hôpital eh, El Hadji Amadou Sakhir mbay ya nekk Louga nga xam ne kon da cee am ñu ngi teg ay daan nee nañ nag eh, dinañ amal ab conférence de presse boo xam ne kon mercredi 20 avril lañ ko jàpp ñu ne buñ ca noppee nag dinañ def ab grève générale boo xam ne jeudi 21 avril la procès bi nga xam ne nag nguurum Sénégal moom moo ko amoon ngir daal yokk li mu ko député yi lu toll ci juróom-ñaar maanaam ñu jóge ci cent soixante cinq dem ci cent soixante douze projet boobu nag euh, démb lañ ko doon waxtaanee fële ca assemblée nationale wante nag mujjeewul antu li ko waral nag moom mooy dafa am ay député yoo xam ne ànduñ ci lu toll ci fukki député ak ñaar loolu sax tax ba député yooyu amal lu ñuy wax amendement amendement boobu nag moo tax kon ba lii di procès ba jàllul kon nag mën nañ jàpp ne woote législative yi ñu jëm nag assemblée nationale 165 députés ya fa nekkoon lañ fay falaat réewum Burkina façon ñoom nag dañoo fas yéene recruter lu toll ci 3000 soldats euh, yokk ko ci limu solda yi nga xam ne kon ñoom ñoo nekk ca l'armée nationale ba li ko waral nag moom mooy foofa dafa am ay defkatu ñaawteef yoo xam ne dañuy faral di song li nga xam ne moom mooy l'armée ba ba sax di ci faat ay soldats limuk solda yu armée bu Burkina façon nag buñ ko xayma ñu ngi toll daal ci euh, quinze mille jàpp 20000 te nee nañ nag euh, la ëpp xaaj ba ci armée de bi la ñuy yëngatu. dañ koy jeexal ak réewum Afrique du Sud foofu nag euh, juróomi fan boobu ak léegi bi fa ay taw yu métti amee te sax mbënd am fa kon ba ay nit yu bëri ñàkk fa seen bakkan mu amit ay yàqu-yàqu yu bëri nee nañ fi mu nekk ni daal ñi nga xam ne ñoom ñooy l'armée ba wante itam police ba ñoom daal ñu ngi boole seeni doole ngir mën a seet ba léegi ay nit yoo xam ne kon dañoo nekk ci biir euh, ban boo xam ne kon dafa màbb ñu nekk nag di leen seet wante nag ci loolu dañ cee am ay jafe-jafe yoo xam ne yu métti la waaye teewul nag ñu ngay wéyal seet ya ngir daal euh, jéem a gis ay nit yoo xam ne ñu ngi ñu ngi dund ba léegi lii la ngeen indiloon tey ci ay xibaar di rafetlu seen teewlu di leen jox di daje ëllëg jaa ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen institut international ICFA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 wala nga envoyé email jot réponse bu gaaw te woo si ICFA online arobas gmail com ICFA daal yéex naa ñëw.